loolu le dafa am ay réaction yi ñu nammeeku ku mel ni Badara gadjaga fele sa jakarlo vidéo bi suba hé ngeen jox nu euh, kàddu nga xamantene Badara yëkëti nako ci euh, mbir bi nga xamantene xewna ci fele ci université vidéo Badara gadjaga mais tontu bee ma gëna metti parce que Mélenchon mom limu gëm taxaw na deugël ci boppam <coughs> Mélenchon mom taxaw na ni man je légiférer pour bind droits ak droit wu France joxé ko mom limu gëm wax ko mhm. bu doon mbeur ni que na taxaw ci ay tankam ci parce que la fekk <coughs> kan mo génn yi waxul lam daan wax c'est Ousmane Sonko le discours de Ousmane Sonko a été ambigu nuancé reculé. arrière génn saaku yi parce que wuñ li Ousmane Sonko Ousmane Sonko sur ce ñoko ko mu nekk ay kaddu yo xamantene ne di Badara gajaga moko yëkëti fofu ci plateau jakarlo bi ñu amal dimb Abdou Nguer kaddu yi nga xamantene ne Badara gajaga yëkkati ko yow loo ci yok waaw di nuyu Badara gajaga Badara mom ci ni lañ ko xamé deug yalla mom lim gëm lay wax té lim gis tamit muy Sénégalais bu waxul li waxo deug képp ku ne la Ousmane Sonko tontu na ki fermement wax na ki fermement ku la wax day fen ak ko mën a doon Ousmane Sonko mo gën yombal chay chay gi ki doon waxi Ousmane Sonko ko gën yombalal ndax mo ne ko duñ leen fi duma duñ leen fi fitnal dinañ leen comprendre phénomène la fi manam lu fi xew la te loolu yëpp du deug yoy nak au lieu ñu wax ko xam nga tan sank neena Ousmane Sonko li tax mu jaar ñu ci diine ni bi mu demee Beauté ci diiné la jaar. <laughs> comme moom xam na ni genn wàll sénégalais yi jànguñu ñenn ñi xamuñu diine mu ne xaaral ma jaar leen foofu foofu moom yoon diine yoon diine moom diine yàlla yoon la ko def woo xam ne dafay jaar pour naxaate parce que dañ leen nga feebar dem ci gynécologue wala nga dem ci fii nga feebar wax leen ba diine ñu diineel ko tey jii moo tax mu njëkke fee jaar ci diine wër wëri làkkum diinukum wala ya diini diine lañ wax waxuñu yëfi góor jigéen góor jigéen suñu borom da koo bañ ba man nee naa ren bu ngeen bayee ba pare njéeréer yi lekk ko xam leen ni Ousmane Sonko la ndax moo fi invité góor jigéen su ngeen bayee ba pare mbay ma yàqu na ngeen xam ne góor jigéen gis nga yàlla nee na bu ma kenn tooñee duma bu ma waree dal ci kawam nag yéen ñëpp jéggalu leen ma parce que du am du ma ci kenn Seydina Moussa bi mu ne bi mu ne yàlla yow lan moo tax bu la kenn tooñee boo boo koy duma doo yam ci moom lan moo tax dane ko dinaa la woon lu tax boo añee pare jëlal sa loxo nga diw ko sa tànk xam nga day niin hmm. bu mu tëddee di nelaw benn melentaan a ko matt fekk lu mat téeméeri melentaan mu tàpp bi mu defee nii li mu rey war na mat vingt mu ne ko benn moo la mat man it noonu laay def tey jii jëf ju bon jii ñu def biir université indi fa indi fa kuti bi mu tenir fa discours am yii te kenn néew ko tuug kenn corrigé wu ko ca ca jotaay ba mën na indi mbugal mu rëy rëy rëy suñu kaw mun na indi musiba naaru laay mu rëy ngeen xaar leen ay mbënd yoo xam ne mosu leen koo gis xaar ngeen bay njéeréer yi lekk ko xaar leen bekkoor xaar leen lépp ndax xeet ya doon def yu bon nii gënuñu leen te yàlla da leen a wan ne mooy kan kon nag suñu réew mi yàpp nañ ñu yàpp boo xam ne indi nañ fi ab góor jigéen boo xam ne taxaw na publiquement nag xam nga am na bu njëkkoon a ñëw borom zipp bi ñu ne waaw xamuñ lan la wax mais bii moom dafa ñëw ne fàng dàng kon nag mbir mi leer na nañ ñi dama ne. man de ren bu ma baykat dina xol limay bay bu baax. d'accord accord loy looy dolli ci kàddu yu Badara Gadiaga xam nga analyse dafa am ñenti ponk soit day pertinent soit mu cohérent soit mu constant te ñett yi dañ ko ràññee ci Badara Gadiaga mhm. ñentel ba moy nga def analyse mensongère fen yalla may la xam-xam may la xam li nga dégg ni dëgg la nga war ko analyser ci dëgg nga jël fen indi ko fa jël dëgg teg ko fële mooy hypocrisie intellectuelle Badara Gadiaga il est pertinent lim wax lu leer nañ la moi je veux pas citer son nom le clochard de France insoumise clochard l'a ko tuddee dafa ñëw ba suñu biir dëkk suñu suuf taxaw vanté wu fëgg dënn dëggal bopam mhm. né man ma njëkk voter loi bi pour ñu sëy gor ak jigen gor ak góor sëy jigéen ak jigen sëy man hétérosexuel là. ki mu ko doon waxal mooy ki ko invité suñu réew kooku nak balaa kii di ñëw dafa jàkkaarloog Macky Sall ne ko waxi daanu fi sarata. la Macky Sall bi mu nee pareeguñu. Hmm. li fi nekk du ma ko sànni dafa ne waxi ku daanu si sareet la léegi waxu kii ak waxi Macky Sall ba noonu si gën daanu sareet hmm. mu waroon fëgg dënnam bind ko si je suis élu président la loi criminalisant l'homosexuel sera l'une des premières que je ferai voter bu le 12 mars 2022 daf ko waroon ne hey li ma waxoon Macky Sall lay wax Macky Sall ko ne woon dafa daanu sa mais waxi caaxaan yi nga fi wax soo ko continuer muy egg nga jëlaat sa avion léegi ñibbi mais dañ ko fëgg crochet mu daw ba génn saako yi ñëw di naan dama blessé sa tànk ak mag maafe bi ma reeree rek nangam sàngam ak yàlla diine beeg croyance bi mais sénégalais ñun ñoo ñàkk jom waaye yow. j'ai honte d'avoir ces genres de personnes là. d'occuper benn part de responsabilité au Sénégal il faut que les Sénégalais prennent leurs responsabilités waxtaan wax dëgg moo ci neex ku waxul dëgg wax fen te waxtu dëgg su jotee te deewoo su boobaa naa fekk nga tey dañuy jàkkaarloog moom mi Ousmane Sonko secrétaire général parti PASTEF tu n'es pas mieux que Sénégalais Respecte ses parole ses cadres démb respecte respecté ko si tu peux nous tuer ou nous mettre en prison ça qu'à commencer tout de suite mais on va pas arrêter wasoon naa leen wax benn bés Ousmane Sonko bés bu jëlee nguur bi man maay raw Guy Marius Sagna ci kaw Ousmane Sonko nu mu meloon te du ma ko defee Europe du ma ko defee Belgique du ma ko defee Suède Sénégal bii laa koy defee man bokkuma ci ay ñoo xamante ni ay dañuy naan activiste lañu toog France làqutu seen caméra fii laa koy waxee di dox ci mbedd bi te du ma ko teg benn manque de respect damay teg lépp ci yoon éthique ak déontologie ba noppi teg ko ci justice ma xool ndax moom dina def justice wala injustice bu mu yàpp sénégalais yi. ces góor là on les veut plus fi bala ki di ñew la fi ne ñom mamatar déclaré Jean-Luc Mélenchon persona non grata à du jour la ko waxé suñ ko defoon li dina yow ngay ñew ci dëkk ne ñi la kenn bëggu fi kenn bëggu fi di nga ñew taxaw sa diggu temple du savoir ay étudiants taxaw fa di ngat na di tal, ay université ki di leen wax ngeen koy ñoo a jom ana jom ci ñeen mais fi ngay tollu do am jom do, RS do, russe tey je préfère voir les médias la presse ñu génn wax kenn ñemew ci wax ñoom ñëpp ñi ngi draguer sa sa gouvernement pour lan ay mietu convention ay miet yu leen di jox gis nga xam nga lan moo gën a bon ci aduna ngay liggéey jël sa dund wekk ko ci gouvernement. mais am na ñu ne li tontu li Sonko tontu nii ku ku ci ku ci ku ci ku ne leerut wala il n'était pas ferme naa fekk nga. si si ay journalistes si ay journalistes lañ. mais defal ndànk ñoom ñooy naa fekk yi Macky Sall daf leen nekk góor jigéen c'est toléré au Sénégal. Macky Sall dafa né góor jigéen ken persécuté ko Sénégal. mosu ko wax ah. Macky Sall dafa mas a ne phénomène la Macky Sall dafa mas a ne lii di góor jigéen ñun danañ ko gérer à notre façon nañ ma génneel quatre mots yoyu su dé Macky Sall wax nako ma xàcc ci VIP people TV suma waxati ci micro yal naa yal na ma yàlla alak jour bob Macky Sall sax dem na ba né kuma ma génneel quatre mots yo xamanteni Macky Sall né nañ ko góor jigéen c'est toléré c'est pas persécuté phénomène la on la gère à notre façon ma xàcc ci wax ci micro bés ni ki tey luy VIP People TV dañ naa jëlal ma may la sama tànk bu ma ko tegati ci bunt bi mais ils n'ont qu'à arrêter là c'est pas des journalistes c'est des mercenaires médiatiques. Macky Sall sax demoon na ba ne kenn yabu ko ci gouvernement bi. Mhm. bay signé ci turu Sénégal. yu mel lan la wax démb ambassadeur am yàgg ku ci dof dafa am lu ñuy cabaxal ci biir document bi ba signé ko dinañ la sanctionner te su boobaa di nga jàkkaarloog le peuple sénégalais. tout journaliste qui dit que ce que Macky Sall a dit et Sonko est pareil tu es un Tu n'es pas un journaliste. Hmm. tu es un dragueur politique. Tu li gën le bon nag dem ba nek soppi ce métier don tiaga dafa famille ni journaliste yi dafa am ñoo ay politique hmm. c'est quoi hmm. c'est quoi le gouvernement c'est quoi des conventions c'est quoi être président d'un ministre man nga fogg ni sama caméra dina taxaw bintu université di tim ay gor